may fàttali sunu gan ni Alpha Sidibé lay wuyoo directeur de la prévention et de la gestion des inondations Chérif mën nañoo dugg ci waxtaan wi ak Barka muy situation ba am ca Guinée. waaw situation bu am ca Guinée léegi leer na Alpha Condé nekk na candidat dem na sax ci cour constitutionnelle ba ngir rek daal di déposer lii di candidature am gis nañu ko semaine passée takk masque moom ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy jàppale. ku jógee it naka noonu gis nga sànq ci journal bi euh, Cellou Dalein Diallo mi nga xamante kon mooy le principal opposant boobu Alpha Condé def lu mel mu mel ni kon na euh, Barka lan doon euh, xii ni mii ni ci wàllu ndax dana ko defam du ko def moom Condé mujj na koo def mujj na ko def te loolu warul bett kenn ci koo xam ne yaa ngi doon seetlu acte yu Alpha Condé posé depuis très longtemps ba partisan wam yi ay ñoñam commencé junju affaire ne troisième mandat war na ko mën def mu bàyyi leen ñu koy dawal euh, te weddiwu ko Mon nous ne ay testé xam troisième mandat bi toujours Afrique dafa am nu commencé. Nous avons a euh, président bi toujours toujours koy a troisième mandat war na mun am terme partout Si nous avons des limitations, am limitation constitution nous avons koy constitution la du constitution bible du du Coran et généralement si vous kilifa bi dafa bàyyi ay ñoñam Euh, dànkaafu artuwu leen mën nañ jàpp ne ci première phase test bi lay nekk léegi lan mooy des mooy xool rapport de force bu muy def ak opposition bi rapport nan la ko communauté internationale bi di defee et cetera donc Condé daf ko def étape par étape ñun euh, amoon nañ chance dem euh, interview ko ci biir bureau à Conakry man Alioune Badara Fall ak Serigne Diagne mais question yi bu mu ko posé ci affaire troisième mandat bi lim ci tontu woon moo doon wane ne ci tànk yooyu la jëm donc euh, pour ko am seetlu. loolu du bettul kenn. dëgg réaction yi ci kujje gi dem ci mbedd mi comme ni daan defee jàmmaar loo am dafa mel ni euh, opposant bi di Cellou Dalein Diallo moom it li mu wax dafa yaakaar ne kon bu koy daan ci mbañ gàcce yi la mais pas ci mbedd meeg fitna. waaw xam nga ñoom balaa sax konde di wax ne dafay nekk candidat di ko fësal. ñom référendum bu mo xone ak élection législative yi da koy def ñom yoy lañ defoon ay manifestation mhm. defoon ay manifestation yo xamné euh, manifestation yu ñu musul gis presque Conakry am sax ñu xayma won euh, ci gën am doole dem na ay un million de personnes donc opposition bi lu fa bees moy que Cellou mo nekkoon sen chef mom mo fa yore parti bu gëna mag mais ci bi wal dafa am ñuko ko fekk ci ci lu ñuy wax Front national de défense de la constitution mhm. mu nekk rassemblement bu maga mag boo xam ne dafa rassembler syndicats yi parti politique yi ak société civile mu doon foofu presque gulet avant jàmmarloo bi ñu ci gën a ñu ci gënoon fa seetlu contre Alpha la wala ay Sidya Touré mhm. ay ko Koyaté mais là dafa laal presque secteur yëpp mhm. et puis mbooloo bi nu mu génnee nu ñu takkoo woon ñoom yaakaaroon nañ ne loolu dina tax Alpha Condé dellu ci ginnaaw mhm. effectivement meloon nañ sax ku ci dellu ginnaaw parce que bu mu desee ñaan ñuy def euh, référendum bi daf ko toxaloon mu mel ni opposition bi xawoon nañ ko imposer rapport de force mais Alpha dafa mën politique dafa mel ni ku leen xaw nelawal tuuti ba mu mel ni lâcher du lest rek après mu ñëwaat mu def ko mm-hmm. et opposition bi dañu ne woon kenn du fa def euh, référendum bi dinañ ko saboter mm-hmm. donte euh, ci jouru élection yi lu ci fu bëri sur Conakry mm-hmm. euh, nit ñi jotuñu voté ak yeneen parti Guinée fu opposition bi gën a amee doole waaye Alpha Condé fexe na ba jàll ba jàllale référendum donc foofu mënoon nañu wax ne euh, bettul kenn mu def prochaine état bi mooy daal di ñëw ne dafay nekk candidat. Mm, mais euh, yëf yi est-ce que dina am impact ci stabilité réew mi donte dégg nañ seetlu ni voilà ci urne yi la koy euh, jaamaarloo ak moom mais est-ce que population bi dinañ ko nangu. Guinée mënuñu wax réellement que am na stabilité wax dëgg yàlla depuis ba fa Alpha Condé toogee. 2010 mhm. la jël pouvoir bi ci ay anam ñu xaw a doy waar. parce que ci premier tour bi Sellu moo ko rawoon jël am 43 pour cent moom mu am 18 pour cent. ñu daal di surtout diggante premier tour bi. ak deuxième tour bi jël na presque ñeenti weer. loolu kenn mësu ko gis ci Afrique. Mhm. ba pare moom mu jëloon amoon 18 pour cent ñëw am 52 pour cent. communauté internationale bi reconnaître victoire bi. seetlu aussi nangu ne nangu nañu ñu gagné ko mais ñu bari dañ japon né dañu wagn loxom ben té ñaar dafa ragalon contester élection yi mu indi fa guerre civile japp né day bàyyi Alpha daldi di. def mandat bi pour la stabilité du pays et après moom mu daldi ñëwaat mais so xolé boobu ba légui noonu. dëkk bi amul benn consensus minimal ci jeu règle électorale yi. Mhm. élection yi dañ koy toxal du duñ ko tenir généralement à date échue. Mhm. au fond aussi. Euh, depuis boobu ba léegi euh, fichier électoral bi composition CENI bi presque Guinée d'accord uñ ci dara te rax si dolli il y a eu plus de 100 morts ci manifestation manifestation yi depuis bu Alpha Condé togué ba légui muy woné violence su. am image yu cimetière yoo xam ne yéen demoon fa. Mhm. fan fan rob gars wa man bima bima démé interview Alpha Condé donte dem ba ci palem tok interview ko taxuma man dama dama dem aussi ci mhm. fief opposition bi. Mhm. dafa am ay quartiers euh, yu nekk Conakry yu tudd yu ñuy wax Lax euh, quartier yi ay Hamdallaye Bambeto Kosa. foofu la waa dg yi gën a am doole mooy dans seetlu daleen jàllo yi muy nekk ay quartiers pauvres mais quartiers yooyu lu tax man ma demoon fa dañu ñoom ñoo fournir le plus grand nombre malheureusement de victimes dañ fa am benn cimetière bu yërëmtalu bu ñuy wax cimetière Bambeto soo fa duggee da nga fay fekk ay xale yu ndaw rek ñoo fa ñoo fa gaañu entre dix huit ans vingt ans trente ans Euh, ñu defal leen fa benn mur bind fa bind fa seen waaw euh, ñoom waa UFDG ay martyrs lañu leen di wax euh, en tout cas ñoom ñoo ëpp ñuy ñuy xale yuy dee chaque fois su manifestation amee dina am benn ñaar ñett ñu fa dee mu nekk lu daw yaram parce mm-hmm. ay xale la yuy xeex pour démocratie am Guinée mm-hmm. comme ni ko Diaw laajee parce que bi ñu ko gisee Sénégal coowal troisième mandat Abdoulaye Wade ku mel ni Macky Sall moom après def na day dem ci terrain bi campagne on a dalee na aussi dafa mel ni loolu la opté mais est réalité yi bokk nañ ak tamit transparence bu dee amul moom war na mën a <laughs> gagner élection yi comme coow yàgg naa am ci ay contentieux ci wàllu élection ci Guinée. dal leen situation am dafa xaw a doy waar parce que balaa muy opté ci dem ci urne yi moom ak waa parti am dañoo tëju presque ñaari fan yoo xam ne ay xëccoo yu métti ci biir parti am ñu wax ne nañ dem boycotter élection yi parce que.

defaguñ ko euh ay ñoñam ñu mu nekkon ci front bi ñu ngi waxtaan ñu ngi naan ñom dañu xol sen taxway ndax dañu dakk wa FNDC euh dañu dakk wa UFDG moy Partisan Saint-Louis ci ci front bi et lolu su amé dina melni Alpha Condé ay manœuvres électorales réussir quand même pour pour diviser Corel gu non noonu. Mm-hmm. ngi wax sank naan Guinée amul stabilité ba fa Alpha Togué ba depuis 2010 donc euh, bientôt quand même 10 euh, ans et ça maintenant est-ce que on peut s'attendre à situation yi nga xamné amone na fa peut-être metti. Guinée en tout cas képp ku koy seetlu ak euh, ñu xam dëkk bi ñëpp.

Euh, problème euh, boo xam ne voilà euh, front social bi. Mhm. lu xew Mali mën na fa xew insurrection mun na fa am coup d'état mun na fa am ndaxte dëkk bi mus naa xam na ay coup d'état kenn ñaanu ko yàlla kenn mhm. ñaanalul leen ko en tout lépp lu fa am même guerre civile kenn ñaanu ko yàlla. Mhm. tout est possible en Guinée par soo xoolee carte politique bi nu mu fa tëddoo. voilà CEDEAO war nañu am ndaje xam nañu mali mo fa gëna fess ci waxtaan yi mais quand même kurel gu mel nonu ban taxaway la wara am ci genre yu mel ni est ce que da fay ni li euh, num tudati euh, ingérence la dañuy té sen bop ban ci commenter wala njit ya dañu japp ni que waji du muy def ñom tamit am nañu koy ruma daat ci ñom sere yow do joxaw am problème ak alpha condé parce que xamuñu exactement ban taxaway la fay am parce que dafa am ay xaritam ci bir sédéwayo ño xam dañu am doole ku mel ni Alassane Ouattara xaritam la bu baax a baax a baax te xam nañ. nekk ci même cas bi ñoo bokk bëgg-bëgg bëgg-bëgg. <laughs> Euh, dëkk bu mel ni Sénégal euh, jafe-jafe yu président Macky Sall amoon ak Alpha Condé tax na te Macky Sall aussi dafa am poids ci CEDEAO léegi bu baax a baax surtout depuis bu mu fa amee ay président ay xaritam comme ay baro Euh, Julius Mada Bio ak ak Weya ñëpp ñu jàpp ne dañoo euh, jege trop euh, Macky Sall Macky Sall am na fa am na fa poids waaye day moytu dugg ci ay affaire gine mu mel ni ingérance parce que suñuy mbokk lañ dafa jege lool et ci brèche yooyu la Alpha Condé di xaw a profito pour moom continuer di di dëgëral taxawaayam les gens sont très gênés mais kan tey ci biir CEDEAO à part peut-être Buhari nga xam ne Nigéria la am na yenn doole yi Euh, mën na wax Alpha euh, ba téré ko francophonie organisation internationale francophonie par exemple ñom retiré won observateurs pour faire un peu pression sur Alpha mais surtout surtout au-delà de la CEDEAO pour ko xam Alpha ñaar ba nit nga ay xaritam lañ wax ak sénégalais mais malheureusement euh, euh, ñaar ñi dañoo génn àdduna kenn ki mooy Babacar Touré. bu fi mm-hmm. bu fi jógee daf ko jege woon lool lool lool lool ñun. Euh, organisé woon nañu sama première rencontre ak Alpha Condé man ak ay journalistes sénégalais en 2015 Babacar Touré moo ko organisé woon biir palais Alpha Condé dans Dansokho bi fi bàyyee ko xaritu benn bakkan Alpha Condé la woon munoon na tëju ak moom xool ko les yeux dans les yeux wax ak moom moom aussi jóge na fi keneen ki professeur Albert Bourgi jeg ko jege lool mais moom dafa xaw a tawat donc ban euh, ci li ma yaakaar mooy ñu mënoon wax ak Alpha mu dégg leen dégluwu leen Ablaye lii xam na ko bu baax defoon na ci sorti wax ko artu ko ne ko li ngay def nii euh, baaxul ci yow mais Alpha dégluwu ko malheureusement gis nañ euh, beneen président bu bees yëkkati woon na fi kaddu mais ñaawoon passif muy euh, président Guinée Bissau euh, bu méngalee troisième mandat boobu ab coup d'état waaw moom dafa mel ni ay intérêt personnel daf ci laxasoo kaddu yi dafa mujjee woon ñagas ba gars yi sax xale yi sax ñu ngi doon commencé yenn ñi di ko tiktok quand même waaw mais mbaalo moom nëbbatuwu ci moom balaa sax euh, sama CEDEAO bi bi mu nekkee bu ñu nee moom moo gañe rek la commencé attaqué Alpha Condé moom musu ci nëbbatu Euh, nee na mu euh, xam na ne Condé bëgg ko mais moom aussi bëggul Condé et dafa ñëw rek am ay déclaration yu très forte yoo xam ne kenn mosu ko presque gis ci ci sous région bi mais c'est parce Burkina Faso la ñu xamante dañoo am ay jaar-jaar yoo xam ne chez mm. Blaise Compaoré yoo xam ne c'est un peu long développer ici xamante xamante nañ bu baax si cause bi mu <laughs> muy défendre <laughs> exactement mën nañ xamante nañ na solo li nga indee ci Barka bu baax di la gërëm nga desandi ak Nous ñu dalal sunu invité euh, Alpha CDB, lay wuyoo ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. muy directeur de la prévention et de la gestion des inondations légui légui ñu sobu ci waxtaan